sante yalla aussi xam di ñaan yalla ndam ci kom ko de yalla mais lim wax ci manam bokul boy dégg ma sen ni mu jangi bëri fu mu jangi bëri ci ñu ko ëpp doole eh. te faram wax nako legi léegi manam ku ko sut des fois yom na am avantage parce que ku fatle ko nga digënté mag su lay toog te su lay yaakaar naa am sa tay normalement ci beuri muy mbeur bo xamni ne sen seen la te nga jël avance am yow itam nga nekk ci benn temps trempe boo xam fi mu nekk waaw moom moom moom laa wax rek ñun. ci lañu yow nga man sam laa xam nga. waaw loolu bu ñu mosee fat gerte gi xam nga. Mhm. lëndëm ak yëpp dañ ciy bëre tàmmul xam nga dool muy ku mhm. amul solo quoi. Mhm. lan mooy l'essentiel bi mën a li ngay def xam ko pare tarbiyewu yaakaar naa am nañ jaar jaar yaakaar amul bu ñu maîtriser. Hmm. nekkal luur wala nga lekk lese noo mën a nekk rek liñ la préparé xam nañ nañ lañ lay étudier boo xamam voilà hmm. mais mais am ni Moustapha ñu ngi lay nuyu yaakaar naa ne euh, fan yi nag sa mbojj da nga koo jëmale Pikine ndax gis nañ ne Pikine moom fan yi jëmale nga ci sa mbojj mais ngay bëri ndaanaan bu ci aw combat waaw gis nañu ko mu dajeeg ay poil yu ko suuf ko mm-hmm. te teewul dafa taxaw mm-hmm. waaw kon lay xamal ne moom xam li muy def te mën na mais tamati mu dajeeg bëgg moom sama diggante ak moom beneen affaire la du du du préparation lay laaj pour man mm. parce que man mbir bu ne dafa am lay la mm-hmm. voilà muy quoi mais ngay ngay bëri ci culture ñaar da ngeen da ngeen fonk tafatin bu ñëwé ci lamb di indi aada ak ciosan Eumeu Sène bu ñëw ci lamb di indi aada ak ciosan bëss bu lan lañ ci mëna xaar ci walu culture bi tamit ndax alañ ngañ bëgg na lolu dañu di ay doomi rek xam nga di aussi sama mbokki séeréer yëpp bàyyi ko gën xam nga leen wax ñu ma ñaan ci combat bi ñu ci ndam leer waaw li da ngay culture bi après sport bi ñëw ca géew ba bu arbitre soufflé voilà foofu la yëf yi nekk sa waaye day laxasaayu man damay laxasaayu day waaj ba ci suuf waaw bés ba moom <laughs> waaw yaa ma gën a xam. Mor taxaw fii. ba fay taxaw fee voilà mais am na loo indi loon euh, Boy Niang. Mm-hmm. Hmm, ñaasal nga ko indi ak ñaasal. ñu déet ne waaye nga indil Bombardier saakaande kii moom ban garab nga koy indi. non sa waay baal man nappaaje ko rek. kan. waaw gis nappaaje ma seen mi. waaw gis nga. moom dafa am armi. waaw daa am armi xëy na ni ma jàngate noonu laa ko jàngate loolu am leneen. te combat bi novembre la alaaji ngañ jañ wax. waaw dencal leen ba xorom si. yàlla ba mbokk yi ak euh, Albourakh Events moo leen di jox rendez-vous au mois de novembre ci diggante ñaari champion Eumeu Sène ak ki nga xam ne mooy Tapha Tine dafa nag nitu slogan la mhm. ca tax ci rib <laughs> mën na waaye defe naa ne ak sakande waaye defe naa am na lu ko Eumeu euh, dencal uh-huh. loolu prochainement xam naa tontu ba ci lay ñëw ndax xam naa bu dee moom it toog ak ku mel ni lanjag ñu étudier wax ji ñu ñàkk dina am moom it slogan bu mu indi ci kaw nappaaji hmm. kon mbokk yi rendez-vous baa ngoogu mois de novembre ak ki nga xam ne mooy Albourakh Events Tafatine ak Eumeu Sène combat bi nag ko bëree bàyyi combat bi dafa am prolongation xalaat la Hmm. waaw ñoom xam nañu moom xam na. Babacar El Hadj Ngagne Diagne loolu nga wax mooy làmb ji cinq minutes jeexalu ko. déedéet déedéet prolongation la wax defara ma ne xam déglu ko fa mu jëm làmb ji dafa am prolongation bu bu nekkul ci géew bi hmm. après géew bi après géew bi dafa am prolongation ci komba bi loolu nag hmm? yóbbaale leen yóbbaale mbokk yi wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala baax nañ a suma suma di nuyu waa Refane yëpp di nuyu Bawol di nuyu aussi Medina bi nga xam ne tey fii laa jëkk a tàkkee ñëpp tey koñ fii nii mu nekk nii may nuyu ñëpp di nuyu suma waa koñ suma jàllee kër jaay boobu ak waa Tëngéej bi yëpp di bëgg ñëpp di siyaare waa Sicap yëpp waa Ouest Foire aussi waaw maa ngi nuyu ñëpp daal di leen wax ne suma combat ak Ama Sène taxaw na mu ngi noonu daal nañ ma ci defal ñaan yàlla defal ma ci ndam voilà muy noonu waa tafa ajafa dama dama dama lool waa tafa combat bi taxaw ñu ngi ñaan yàlla ngeen bëri ko ci jàmm mu jeex si jàmm sa diggante ak Eumeu Sène yaakaar naa ne combat la boo xam bu nit ñi yàgg bëgg la mais yéen ñaari mbir tamit dafa mel lu lu ngeen yàgg bëgg la tey dégg nga Eumeu Sène li alaaji ngañ ja wax ne na carrière Eumeu Sène mënta rafet te yow bokkoo ci yow itam sa carrière mënta rafet te Eumeu bokku ci waaw am na loo xam ne day dem boobu xam nga dootul mën a ñàkk lu mënul ñàkk nag day am loolu waral tey suma combat ak ama seen taxaw du question ne del ma topp la mu topp moom xam na bu baax xëy na dafa dem ba mënatul ñàkk yàlla def mu taxaw comme léegi moom wax na ko ciy wax nee na ci kaw ñëpp dafa alaaji mosul bëreel yàlla dogal na ko tey alaaji Bachirou baabu yow boo waxee rek tënk nga lépp ndax euh, lii rek lañ lay doyee mooy fàttali <clears throat> ak teg xale yi ci yoon mhm. Alburax Events ca na moo ko daan defee ca euh, euh, depuis artistes yi di leen yóbbu ci fu mel ni grand théâtre mhm. moo wéyal ci làmb ji parce que Alburax Events bu leen fàttali structure la boo xam ne lancé na fi artistes yu bari kon artistes yi mbëri ci lañu bokk mbëri artistes la mhm. ndax mbër li tax muy artiste mbër bu ñëwee ci làmb ji day fecc ba ba arbitre bi sifflé kooku artiste bi la bu arbitre bi sifflé sportif bi mooy ñëw moo tax l'aspect culturel de la lutte euh, làmb dafa am solo làmb rek la trois ministère yor ak quatrième sax ñu ngi ko ci xool muy la jeunesse sport ak culture ak tourisme ak tourisme loolu yëpp làmb da ko dargaajoo te kon làmb mooy Sénégal làmb mooy Sénégal moo tax bii ñu jëm au mois de novembre ñu jël ñaar ñoo xam ne ñii tànneef lañu ci biir tànn mhm. parce que critères yi parfois aussi da nga koy xool ci bés yi bés dafa niru borom mhm. moo tax bii ñu tànn ñaar ñii ñaar ñii duñu leen présenté benn Sénégal Sénégalais mais Alaaji Ngagne yaakaar naa ne ñaari poids lourds yu toll nii te mosu ñoo bëri ci làmb bën bës bu mag la lay fàttali ci wàllu làmb waaw xam nga bés bii day fàttali bi nga xam ne eh, bari na sax ñu ci mën a fàttali mm-hmm. ndax xale yàgg na daf mag mm-hmm. mag dëpp ko xale yàgg na dab mag daga dàllu mag loolu bari na fi bari na combat yu bari eh, ci jànq la commencé mm-hmm. Moustapha Gueye Tyson ci jànq la commencé booy xool baa booy Gris ci jànq la yooyu yëpp mën naa ko lim mën naa ci lim sans combat ndax mhm. lépp dañ ko fekkee. Mhm. boobu da koy dugal ci yooyu. kon nag combat bi non seulement waxuma la dara sax mais ñoom ñaar xam nga combat balaay neex ñaari bëri respecté te mhm. te ñaari xale yu am sérénité lañu ñu boole. ñaari xale yu professionnel la ñu boole. ñaari xale yu am discipline la ñu boole. moo tax tey ñu tànn ko mois de novembre euh, Babacar nee na jege na waaw bu ñoom bu ñu paree woon sax dimanche bii ñëw. ñu tëgg ko waaw parce que dañu bëgg ñu dugg chef bisimilah yi gën seeg alhamdulilah fi réew mi toll jàmm rek la laaj te lii dañ dañ cee kontaanee ba tëgg ci làmb fi réew mi toll làmb ji dafa toll fi réew mi toll tey barka démb xol yëpp sedd tey. waaw mhm. tey làmb gën a sàppaane waaw ñu may leen lii nag mhm. moo tax bàyyi ne duma duma du ci yem lii président wax dafa ne du ci yem damay may Sénégal yi cadeau moo tax mu xëcc ñaar ñii ci li nga xam ne fi la Sénégal tollu tey indi ëmër. Ah, tey làmb gën a sàppaane waaw ñu may leen lii nag moo tax bàyyi ne du duma ci yem mm-hmm. lii président wax mm-hmm. dafa ne du ci yem damay may Sénégal yi cadeau moo tax mu xëcc ñaar ñii ci li nga xam ne fi la Sénégal tollu tey indi ëmër seen te mu nag comme mooy mag mooy magum kër mais père balaa ngaa dem ci ëmër nga baal ma tout lii moom yow laa koy laaj ñoom ñaar parce que kenn maa wax ak mom ki ma wax ak mom mais ñom ñaar comme li nga wax ci discipline bi quoi ci ñom ñaar manam joxante ciir bi mais tëriwul damay gis que ni ko ci waxal rek day mel dafa gëna soxla bëri ak mom wa dem sen day dafa mel ni ku soxla bëri ak Tafa Tafa itam mel leen ku sobu ci mbojum Tafa Eumeu sen trop trop. Mhm. jangat bobu lan la. wa parce que carrière Omar Sen dama lu bëgg wone ak Tafa te lu bëgg wone wa waa carrière am carrière am. Omar Sen boo bu ci Tafa Tine bokul bu ko yeboo mu sandi carrière. Hmm. Hein? Oui. carrière u Tapha Wow. Vous avez commencé un peu. bopp waaw da sànni carrière bi da sànni carrière bi te ñoom ñaar bul fàttale eh? mhm. dafa am ko leen boole mooy kan Bombardier waaw <laughs> waaw wow. nga dëgg de ku ne jël nga fa ñaari victoire sa kër ah deux deux waaw waaw am nga fa deux de waaw